jërëjëf la tey lay fay. motifu grève bi lenn la sauf que ñun dañoo nekk en sept jours de sept ou six jours des examens de philosophie léegi nag nous au début on a passé par négociation ñu wax proviseur bi nekk que ñun lenn lañ mën mën nañ composer philosophie mën philosophie mais quant les autres matières qui restent mën nañ ko repousser ba après philo bi parce que on a des leçons à apprendre yow déjà pour une leçon rek mënoo ko jàng en une semaine waxuma la pour trois domaines léegi nag on a passé par les négociations ñu wax ak proviseur bi et tout ça après nag mu ne moom yoonam nekk si dañuy ñëw philosophe et tout ça léegi ñu ne ko ñun loolu mënuñu ko parce que ñun obsété nañ fi la mais bëgguñu def yeneen matières yi mu bañ léegi nag ñun nag ñu ñëw tey ñu ne ku bëgg dugg da ngay dugg ko bëggul da ngay génn ñu ne ko ñun dañu bëgg solidarité ñun ñëpp ñu génn ndax lan affaire bi arrangé wuñu après ñu génn policiers yi ñu andi ay gendarme policiers yi ñëw sur place policiers yi bu ñëwee sur place nag nañu da ngeen ñu génn lycée bi d'accord ñu génn lycée bi par voie pacifique taxaw si biti ñu fekk ñu foofu nañu da ngeen ñu dégagé waat fii fu ñu taxaw ñu dégagé ñu dugg nañ si ruq yi fu ñu dugg ñu dàq ñu dégagé ñu parce que lan nee nañ dañuy nibi par la force et des trucs du genre lu ma si gën a métti mooy ñu exercer violence si ñi nga xamante ne dañuy réclamer seen droit policiers yi ñëw jàpp nañ suñuy camarades de classe yu bëri jàpp nañ la ndax lan dañoo taxaw rek ñu ñëw yóbbu lan na lañ lay yóbbu e tout ça ku filmé ñu ñëw confisqué sa téléphone nee nañ kenn du exprimé wu ku exprimé wu dañ lay yóbbu pour quelle raison te ñun dañoo am ay droit nga xamante ne dañ koy kaas déjà suñu programme terminé wul suñuy leçon mooy loolu et tout ça philosophie moom pare nañ ko macha allah parce que on a un excellent prof mais pourtant dans les autres matières mooy loolu ba pare ñu bëgg ñu obligé li nga xamante ne ñun mënuñu ko dafay metti xam nga loo gis rek am na ay extrémistes ñun hier dañoo mobilisé wu ñun ñëpp ñu ne dañuy d'accord que tey dañuy boycotter composition philosophie bi pour lan pour suñu ñu xool nuñu suñu arrangement boycotter yeneen compos yi puisque ñoom nanguwuñ ñu ñu composé philo kese léegi la ñu ñëw foo gis am na extrémistes am na ay terroristes yu dem dugg ñoom di def mais ba tey ñoom c'est le problème mais ñu parce que majoritaire bi yëpp dañoo génn quatre lañ xaw ma quatre si je me trompe élèves ñoo composé L prime suñ dernier kàddu mooy lenn la mooy volonté générale bi mooy lu ñëpp bëgg mooy lan na ñu may ñu composé filo le reste de la composition y reste ñu renvoyé ko ba après filo ñu nangu nañ composé parce que day metti déjà yo après filo di nga am 12 jours si je me trompe pas 17 jours ngay am pour réviser pour la bac général léegi ñun ñu sacrifier loolu pour ne nangu nañ compo après filo loolu mën nañ ñu ko accorder xanaa en tant qu'élève ñun lenn lañ leen wax xam te loolu defe naa ne ñëpp dinañ ko nangul ñii mënuñu ñoo jël je vous donne l' exemple barki démb la pare suñu suñu leçon wu aar lañ ko pare tey démb ñu ñëw ñu jox ñu benn ñu jox ñu ay kii sujet yoo xam ne si aar lay porté on a même pas fini notre programme ñu ñu imposer que nañ nañ def ay composition ñu ñu ñu waxoon dafa leer tant que anticiper yi jeexul du ñu nekk fii di def ay composition bu anticiper yi jeexee on ñun nag dinañ ñëw toog defal leen seen i composition n'est-ce pas que pour pour juste finaliser suñu suñu année la mais ñun ñu ñoo xam ni ñu metti SVI tout ce qu'on veut ñun c'est nous concentrer sur nos anticipés loolu mooy tax ñu dem suñ fi awee sa moyenne 14 du tax ne bu ñu amul bu ñu awul bu ñu amul bac du ñu dem fenn. donc pourquoi nous imposer loo xam mun mënuñu ko au début état bi dafa leeroon def nañu ñëw leen ngeen jàng pour simplement ngeen ngeen def seen examen ngeen dem seen yoon loolu la ñu waxoon au début après ñu ñuy imposer plus affaire yi di dem ñu ñu imposer ay choses léegi nag ñun ñoo mënatul on a décidé de pas faire te leen la ñuy wax proviseur bi élèves yi ñu jàpp duñ leen bàyyi ñun ñu ñëpp on est soudés duñu bàyyi ñu ñuy téye yenn élèves ñuy ñu ñu ñuy ñibbi suñu kër simple raison lañ ko bëgg léegi comme que ñun décidé nañ ne duñu def am na ñuy def loolu c'est leur problème mais élèves yi mu jàpp na leen bàyyi il n'a pas le droit di jàpp yenn élèves yi simplement parce que ñoom nee nañ ñu def composition pour lan wóor am na ñoo am sama benn copine de classe instant dañ ko jàppaat jàpp nañ ko deux fois si bu muy lañ ko fekk dem jàpp ko lañ ko fekk jàpp ko simplement parce que da doon jënd ndékki mu ne leen du ma dem ñu jàpp ko ba pare nee na ba ñu foofu noonu dañ ko doon jéem a naan ko toogal si suuf di ko téye di ko téye am na élèves yoo xam ne jël nañ seen téléphone di ko saaga di ko def lu nekk ils ont la force contre des élèves y a des choses beaucoup plus préoccupantes ji ñi nga xam ne respecté ñu les mesures agresseurs yaa ngi fi voleurs yaa ngi fi nous nous sommes que des élèves nous nous disons que juste que nous ne voulons pas faire nos compositions maintenant et on a le droit de le dire pourquoi léegi ñuy jël ay gendarmes contre des élèves simplement nañ dem lijjanti les problèmes qui sont beaucoup plus ñoo gën a garaaw te ñoom ñoo gën a ñu utiliser wuñ force. cadre bu mu ñëw dañuy wax ak proviseur bi moom la ñuy waxal moom ak censeur bi simplement élèves yi ñu jàpp duñ leen may dara. tant que bàyyiwuñu élèves yi nu nous nous ne nous laisserons pas faire ils n'ont qu'à laisser noo nos amis de classe parce que nous sudee te lu mu bañu lu mu ko ci bañu nag bañu ko ci te composition bi duñ ko def te duñ ko def te ñoom amuñu droit pénaliser ñu simplement pour ça te élèves ñu téye nañ leen bàyyi. waaw dinaa ñu la delloo nuyoo di leen ziar yéen ñi ñëw pour sukkandiku si suñu fee am tey ndaxte boo xoolee gars yi proposé woon nañ composition bu yàgg ñun dañu joxoon date le vingt cinq ñu ne dañu def compo ñu nangu bu ñu demee ba le vingt cinq jot am ñoo xam ne dañu dem def brevet mënuñ def compo bi ñu ñëw ba bés tey ñu war a réviser suñu philo ndaxte mardi ne mercredi le douze dañu defi philo tamit ñu bëgg ñu imposer compo yi ci si matière yëpp te ñu loolu duñ ko nangu ndaxte duñu am temps de réflexion boo xamante ne dina doy wala temps de révision boo xamante ne dina doy loolu moo tax tey ñu boycotté composition yi ne duñ compo fee yi nag moom moo ko moom moo ko indi moom moom ndaxte moom moo taxaw bëgg ñu bëgg ñu xa xaftal taxaw nee ñu damay damay oo gendarmerie ba ma tontu ko démb nee na ko boo oowee gendarmerie sax du tee dañuy grève mu menacé ñu ne suñu livret de bac da koy da koy jéem a kii. ma ne ko même livret yi loo si def moyenne semestrielle boo si def ñun en tout cas ñun dinañ def suñu yàlla yàllaa xam moom mooy dogal xam nga si lañ sëfalee tey ñu ñëw gis gendarmerie yi taxaw si buntu bi. am ñoo xamante ne génn nañ am ñoo xam neen dañuy def cours maintenant ñun su luñ déggoo ñu ñëw boycotté compo yi te ñëwuñu pour woon def violence ñëw dañ ñëwoon pour def fair play ndaxte bu ñu ñëwee démb wax na ñax moom mais moom si kàddoom la sukkandiku bëgg ñu imposer bëgg a teg dictature am te ñun fii nii démocratie lañ xam comprendre mais moom bu mu ñëwee dafa ñëw imposer ñu. bëgguñ def compo yi ndaxte pare wuñu sérieusement pare pare wuñu ndaxte boo xoolee début année scolaire commencé nañ jàng normal bi feebar bu duggee. boobu ba tey jànguñu te tamit boo toogee une semaine jaa ubbiwee say kay am ñoo xam ne dañu fàtte te tamit am ñoo xam ne pare nañ programme ñii parewuñu te ñëpp mënuñu defandoo compo comprendre moo tax ñun ñu boycotté compo yi ne duñ dem ndaxte sérieusement parler parewuñu même anticiper sax dañu dem di tiit ndaxte parewuñu sérieusement programme parewuñu exercice parewuñu entraîné wuñu euh, euh, waaw waaw loolu am na am na ñu jàpp si ñoo xamante ne sax ñëwuñu woon pour grève dañoo ñoo taxaw rek ñu jàpp leen loolu tamit nañ si faral di wax te tamit ñu ngi ñu ñu ngi ñaan tamit ngeen def si seen kéemtalaay kàttan pour ñoo ñoo ñu génne leen surtout xale yi jigéen ndaxte tamit mënoo fekk doomu jaamur taxaw si mbedd deful dara nga ñëw ne ko kirtib mais bu question dem jàpp doomu jaamur ba pare jàpp ko surtout élève nga nga si jigéen nga jàpp ko di ko dóor sànq man bi ma wootee portable bi ma wootee booy bi dafa décoré ñu koy dóor si biir bi maa ngi dégg lépp loolu yëpp maa ngi koy dégg di ñu menacé gërëndaat bi dañ ko sànni suñu kaw man la noroon dal ma puus loolu yëpp am na fa tamit nga bëgg a lor say say élève ba pare bëgg ñu réussir loolu ndax adéquat ndax la raison kàddu mujj gi mooy lu muy doon mooy du ñu bàyyi ñun du ñu bàyyi tant ñoom libéré ñu suñu suñu camarade de classe yi bàyyi tamit tant que ñoom tamit ñoom abtuwuñu ak ñun luñu luñ lu ñu si ñeex ñoom comprendre ñun tamit compo wuñu ñu dara compo wuñu fii ak suba fii ak ginnaaw suba ba dimanche ba mardi compo wuñu dañu ñëw pour révision pour def suñu anticiper après anticiper bi nag bu la neexee ñu organiser compo am nañ table large démb da doon lay naan da doon a lay naan non professeur du ñu am tas de correction man gis naa prof bi corrigé deux deux jours copie mu corrigé ko man gis naa ko te si biir salle bi la ko defee kon bu mu taxaw naan prof yi foog ñu am une semaine ay conseil des classes conseil des classes vingt vingt et un la ñu ko fixé woon vingt vingt et un deux la tamit tëj école yi ba pare nee du ñuy réviser après nga bëgg say élèves réviser loolu mënut a nekk dañuy obligé dem dañu obligé dem. ah proviseur yi moo ko def non jàpp ma turam sérieusement pardon. madame Ba madame Ba. jàpp ma turam te tamit jéemu ma ko jàpp ndaxte maam moom neexawuñu. léegi loo si moom mooy mu fekk suñu lu ñu bëgg ndaxte ñun ay élèves lañ tamit dañ fi dañ fiy bàyyi suñu rakk yi jàng ñun lu ñu bëgg. bëgguñu leneen lu dul am suñu bag dem suñu yoon bëgguñu fi dara loo xamante ñun dañoo bëgg suñu rakay bu ñu ñëwee nekk dans dans des conditions ñun loolu lañ bëgg même salle des classes sax ñoo doon kaas pour ñu defaral lamp yi baara table baay même chose comprendre mais ñun tey mënuñu ñëw doon ene école yi ba pare di grève xam nga ñun ñu sommes assez responsables buñ grève am nañ fu ñu ko teg tamit nit ki mënoo xëy rek naan da ngay grève te tegoo ko fenn ñun balaa ñoo a ñu wax ak moom ñu ko ñun ndax professeur sax boo xoolee ñoom tamit dañ dañ doon boycotté si suuf bëgguñu woon def compo